internautes yi dalee nag jàmm histoire bu Mali fu mu toll nii nag daanaka euh, président de la République Macky Sall daal dina ci euh, nag euh, soobu na ci waxtaan ya moom Macky Sall ne ñu situation bu Mali ba tax na nag daal dina commencé ay waxtaan ki nga xam ne mooy colonel Assimi Goïta président en exercice bu Union africaine Macky Sall di nag door waxtaan ak ki nga xam ne mooy colonel Assimi Goïta nekk président bu transition bi ca Mali. Diomaye chef de l'état sénégalais euh, jaarale ko ci benn tweet ne nag mu ngay soutenir reprise bu dialogue bi euh, euh, pour nag ab solution am ñu négocier ko ci crise ga am ca diwaanu Mali moom nag daal di ne à la veille ci nag visite ba mu doon amal ca Bamako bu médiateur bu CEDEAO moom président Macky Sall nee na nag moom nañu ñu daal di mu nekk médiateur bu CEDEAO war a waxtaan ak gouvernement de transition boobule ak waa CEDEAO mu nekk nag intermédiaire bi nga moo war a daal di indi daal ci diggante bi moom Macky Sall ne nag entretenir na euh, tey jii ak colonel Assimi Goïta nekk président bu transition bu Mali di soutenir itam reprise bu dialogue bi euh, ngir benn euh, solution bu ñuy négocier ci crise ba am ca diwaanu Mali Macky Sall moo ko wax ca Twitter ne ab entretien boo xam ne dafay intervenir ci veille bu nag visite bu médiateur bu CEDEAO pour le Mali ndax ancien président nigérian bi di Goodluck Jonathan daanaka moom itam dana dem ca Bamako capitale capitale malienne euh, suba euh, ci aljuma gi la koy def bile visite itam euh, di intervenir ay semaine ginnaaw ab première visite boo xamante ni délégation bu organisation ouest africaine ak bu junte malienne gisut woon accord ci ay points yu essentiel notamment ab date pour future élection yi lée moo tax nag daanaka fu mu toll nii président de la république Macky Sall na ni tëjub Mali gi nga xamante Mali tëju na ko nag daan nag dafa commencé di ko daal di nag euh, porter préjudice ndax démb wax nañ fi ne Mali li mu daal di tëj ay frontières am euh, fii ci Sénégal sax yëg nañu ko ndax perdre na lu toll ci vingt quatre milliards euh, ci suñuy koppar nag ci diirub ñaari weer yi nga xamante ni Mali daal dina koy bokkatu toog fa mu toog moo tax nag nekk na loo xamante ni moom yi bu ci gaawut jóg dina daal di nag nekk loo xamante ni nag dina Euh, doon ab catastrophe lay daal di nag doon pour économie sénégalaise te moom Macky Sall ñu bëri nee ñu nag euh, moom mii moo war a faral euh, Mali te nag daanaka topp France tax nag mu daal di bëgg a jël Mali itam daal di koy nag bëgg a teg ci suuf te loolee nag mën na doon li nga xamante ni nag daanaka ab nag loo xam ne du gën lool pour Sénégal waaye nag Macky fu mu toll ni dégg na nag analyse wu les uns et des autres moo tax nag moom itam jël les devants